kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ayat 39 ci suratul isra fi suñu borom di waxe ne ذلك مما أوهى إليك ربك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي كن tey mooy suñu àllarba ji di ñaar fukki fan ak benn ci zulqaada atum 1440 di tombeeg le 24 juillet ci 2019 ñu dajawaat ci téere bi yàlla bi jalla waala ci néegu bi yàlla bi ñu yàlla wërsëgal ñu daje fii di ñaan yàlla subhanahu wa taala li nga xam ne yàgg nañ ko fàttali ci ngëneel ya nekk ca loolu yal na yàlla jagleel ñu ko mboolem ñi nga xam ne ñii it waxtaan ba dafa nar a yegg ca ñoom yal na yàlla boole ñu ak ñoom ñëpp te ñuy dégg ndigali yàlla gannaaw topp la ci gën a rafet. ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom it na doon waa xam sa diine yi la wala waa Islam TV ak groupe yi aju ci jàkka ji yëpp ñoom it yal na yàlla subhanahu wa taala boole leen ci ñiy jottali kàddu gi yàlla. kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane ci suñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك مما
sheytaani rajim suñu boroom mu ni zalika mimma awha ilayka rabbuka min alxikma loolu day bokk na ca la nga xam ne sa boroom waxyu na la ko te mooy xamal na la ko ca la nga xam ne mooy xikma xikma mooy ak xereñe mooy sagesse lu nekk nga teg ko fa mu war a tege wala tajal ma allahi ilahan axar bul def mukk muy ànd ak yàlla yàlla beneen kon dey fa tulqa fi jahannam daañu la sànni kon ci biir jahannam maluumam madxuura nga doon aji ku ñu yedd aji ku ñuy dàq soril ko yërmande yàlla waaw yéen bokkaalekat yi afa asfaakum rabbukum bilbaniin ndax seen borom yàlla da leen a tànn jagleel leen doom yu góor wattaxasa min almalaikati inaasa mu daal di jël ca malaaka ya ay doom yoo xam ni ay jigéen lañu innakum la taquluuna qawlan azima yéen de yéen ngi wax wax joo xam ne wax ju rëy la wax ju màgg la wa laqad sarrafna fi hada alqurani liyazakkaru donte ne ni tasaare nañu teqale nañu ci alquran ji ngiree doomu aadama yi fàttaliku wa ma yaziduhum illa nufura waaye loolu dolliwu leen lu dul gën a tasaaroo kese qul law kaana ma'ahu aliha neel bu doon dafa ànd ak yàlla yeneen ni yàlla kama yaquluun comme ñoom nañ koy waxee day idan labtagaw ila zil arshi sabila kon yàlla yooyu doon nañu sàkku ca borom arsh bu màgg ba yoon wu ñuy am ci moom subhanahu wa taala amma yaquluuna uluwan kabira sell ñeel na ko ca kawe na ca la ñuy wax kawe goo xam ni kawe gu màgg la tusabbihu lahu samawatu sab yàlla moom mi ngi koy sabbal asamaani juróom-ñaar wal ardo man fihin mi ngi koy sabbaalal suuf si ak la nekk ca biir suuf wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdi amul lenn lu mën a doon lu dul mi ngi sabbaal ca cantuk borom ba walakin la tafqahuuna tasbihahum waaye yéen day mënu leen a dégg ay mënu leen a comprendre ñoom nañuy sabbaale innahu kaana xaliman gafura sa borom yàlla day nekk na ku teey nekk na koo xam ni kuy jéggal ay jaamam la mi ngi noonu mbokko bu ngeen bàyyee xel suñu ñaari daje yu mujj ci téere borom bi borom bi mi ngi ñuy jàngal teggiin yi ñu war a jëfeeg moom dañu war a jëfeeg way jur ya dañu war a jëfeeg doom ya jirim ya ca commerce ba ba ñuy dox ay teggin yu bare bare bari borom bi nag mu ni yow yeneen ci bi lii bokk na ci lu la yàlla wax yu muy xikma doon sagesse ca nga la waay yow ndawal julit xamal ni tey ji la nga xame ni nii mooy tubaab bi programme bi ñu am di ko jàngale dañ la jàngal des tonnes et des tonnes information yoo xam ni 90 pour cent yi amulu la njëriñ sa dund ba jagleel la ay diplôme yu ñuy tuddee ay bac ak ay licence ak maîtrise ak lu kenn xamul waaye ngal la waaye xamal la nga xame ni ni mooy comportement bu rafet la nga xame ne muy ak nite goo xam ne moo lay may dund go dal ci kaw suuf sawaun nga riche wala nga pauvre nga am pouvoir wala nga ñàkk pouvoir ak foo mën a nekk ci kaw suuf la lay may dundu go dal dundu go teey ëllëgi si biir allaxira it nga texe fa mbokk mooy li nga jële ci sa téere borom loolu tax nga la way jéem leen jàng alquran même bu doonte ne ni say moyen yeggul lu dul ci lii di coran traduit nga la way bari leen di jël coran traduit boobu di lire traduction ba ca nekk ci wàllu français xëy na loolu nekk na takk ndeeru ci alquran waaye moo tani seen temps yépp ngeen jagleel ko portable yi journaux yi ordinateurs yi ila axiri ila axiri ndax alquran mooy li la xam ne moo lay teete ñu jàng ko suñ dars bi passé wala yi passé suñu borom mu ne inna haza alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran mooy jubale ca la nga xamee ni nii moo gën a mat gën a juste gën a baax ci dundin donte ne ne xikma boobu yàlla lay jàngale nañ xam ne lay base ba mbokk julit mooy wéetal yàlla jalla waala wéetal yàlla mooy baasu l'islam mooy pilier l'islam mooy couverture l'islam waa ji nga xam ne wéetalul boroomam amul lu mu mën a defal yàlla ba yàlla gisatu ko sawara la jëm xaalidina fiha abada loolu moo taxit lañ war a gën a ittewoo lay xikma bi jiitu ci xikma ji le sage des sages mooy ki nga xam ne xam na boroomam wéetal ko ca loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax ñu bañ seytaane di rappeloo ñu na am suñu réew fan yi ñi ngi fi xeex lu bon musiba bu ñaaw dara gënu koo bon muy la nga xam ni mooy góor jigéen naam ki di abdul malik ibnu marwan nekkoon ci buure bani umayya yi nee na moom bu yàlla waxul woon góor jigéen am na ci alquran kenn mënu koo convaincre ba mu gëm ni góor dana dem ñu koy jabaroo li ko yàlla wax ci alquran daal moo tax mu gëm ko kon lu bon la na am waaye nag mbokk julit ñu xam ni la gën a bon loolu mooy shirk la gën a bon loolu mooy ñuy wootoo yàlla yónni na leen ay yonent ñi gën a bon loolu mooy ñi nga xam ne yàlla jëknal na leen teggil na leen sharia wallahi lazi la ilaha illa huwa looloo gën a bon góor jigéen ca loolu ah benn soxna bu baax bu nekk ca norvège mi ngi may téléphoné mu ne ma imam seen dëkk bi da tey temps yi bëri na coow lool ci wàllu góor jigéen waaye man de li ma jaaxal ñun ñu nekk bitim réew di leen déglu yéen lañu fay wax ci shirk di fa wax ci ay bidaa yuy génn nit ci diine waaw loolu lu tax nit ñi manifesté wuñ ci te loolu it ngeen bàyyi ci xel surtout yéen jeunes yi dag la ngi gis kilifa diine mu langoo koo xam ni la muy ànd ak moom di ko xeex kii mu toogal li mu nekk moo ko yées téeméeri junni yoon am déet mi ngi noonu loolu moo tax ba bu ñu tànnoon ci ne nañ fexe ba góor jigéen jóge fi ak ñi woote na yàlla yónni nañu ab yonent te jóge fi képp ko am xel da nga jàpp da ngay doo sikk sàkk ne ñi woote na yàlla yónni na yonent Sénégal jóge fi ñooñu ñoo gën a yey jóge fi kuy xeex góor jigéen ñu ne ko waa par rapport ak ñu jàpp ne rek teggil nañ leen sharia am nañ droit duñu julli duñu woor ca ci lislaam lañ bokk ñooñee kan moo ci gën a jege diine lislaam mbokk da ngay gis ne yooyu ay erreur la du tax mukk nag yow góor jigéen bu bon bi nga jàpp naa wala am na ñu ma yées déedéet am na ñu lay yées kay fexe nga baax moo ko gën su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax li ñuy bañ rek mooy suñu ndaw ñu jaawale buñ gisee ay mbooloo yu ànd di xeex benn cause te ñooñu ñu ñu ànd nekk ci musiba yi gën a garaaw ñu bañ a ñu dem ba jàpp naa mbaa du kon ñii ànd dafa wane ne lii mooy groupe bu baax bi ña ngay xeex lu bon déedéet bari na groupe bu ànd di xeex lu bon fekk ñoom ñooñu ñu ànd ñu gën a bon ñu ngi ci biir loolu loolu ñu bàyyi ko xel bu baax mboolem yeneen ci yàlla la leen yëkkati woon mooy ñu daal di saxal tawxid dàq shirk gannaaw ba nag mu am di woote secondaire ci wàllu njaaloo gaag góor jigéen gaag agression yaag yeneen ak yeneen waaye moo tax suñu borom bi mu ñu waxee xikma mu tëjee ko ni la nga xam ne moom lu ko ubbee woon ca mooy wala tajal ma allahi ilahan axar yow yenenti yàlla bi fa tulqa fi jahannama maluman madxura suñu borom bàyyi loolu bokk na cheytaane fu mu jaar ak doomu aadama yi mooy ñu bari ci ñoom pour mu utal leen yàlla day xaw a diis ci seen xol seytaane jaar ak ñoom ne leen ah yàlla kay muy yàlla mu mag mi am na waaye nag daa am doom mu dem ci yéefiri arab yi ne leen malaaka yi ay doomi yàlla lañu dem ci yahudi oseyru doomu yàlla la dem ci nasaraan yi masih isa doomi yàlla la amma nag ñoom arab yi yàlla di jëkk a waxal ñoom dañ ne malaaka yi ay doomi jigéen lañu malaaka yépp jigéen lañu suñ borom mu ne waaw ndax yàlla dana leen tànnal yéen doom yu góor ba pare moom mu féetewoo la ngeen gën a bañ muy doom yu jigéen yéen a ngi wax wax joo xam ne wax ju màgg la te mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk nañu xam ne wax gunta màgg jiñ yàlla doom suñ borom nee na ba ka nit ñi jëkkee wax تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا bi doomu aadama jëkke yëkkati ne yàlla am na doom asamaan yi xaw nañu xotteeku suuf xaw na xar montagne yi daanu ngir yi dañuy wutal yàlla subhanahu wa taala la nga xam ne mooy doom te wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada borom boobu nag mu ni man day alquran ji teqale naa ci bu nekk teqale ngir yi doomu aadama yi waaru alquran teete leen yóbbu leen ci seen borom waaye dolliwu leen lu dul gën a daw dolliwu leen lu dul gën a tasaaroo te loolu it mbokk julit lay musiba yi musiba tey mooy 90 pour cent julit ñi tey jàng lu ñu leen alquran firi lu ñu leen alquran xamuñu lan la alquran di woote mi ngi noonu borom boobu nag daal di leen di feddali na leen su doon am ne beneen yàlla bu nekk ci kaw asamaan wala kaw suuf comme yéen ni ngeen koy waxe kon koy yàlla yooyu dañ ut ci yàlla yoon bu yàlla bëggee indi guddi beneen yàlla jóg na ko hey yàlla bëccëg bi ngay indi bu yàlla bëggee rey beneen yàlla jóg na ko hey yàlla doo doo rey ñi ala kulli xaal kon daañ yàlla dina bëgg def dara ñu tere ko ko wala ñu xeex ak moom mi ngi noonu moom la borom bi di wax naan ma ittaxaza allahu min waladin wa ma kaana maahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima xalaqa wala ala baaduhum ala baad bu doon am na si yeneen yàlla kon da ngay gis yàlla bi ne hey man maa bind asamaan kii ne maa bind géej kii ne maa bind suuf te ku nekk dana xeex ak sa morom ngir nga ëpp ko pouvoir kon mbokk la ilaha illa allah yàlla kenn kese la loolu ñuy wax màgg na borom boobu nag ne yéen nit ak jinne yéen a may bokkaale waaye asamaani juróom-ñaar ak suuf ak lu ci nekk ñi ngi sax di sabbal yàlla sax di sant yàlla amul lenn lu ngeen xam ak lu ngeen xamul lu dul mi ngi sabbal yàlla donte ne yéen xamu leen nuñ koy defee te loolu it la julit war a gëm amul lu mu mën a doon lu dul mi ngi sabbal yàlla tey bi science développé yàlla dégtal nañu xatta biddiw yi da ngay gis scientifique yi ñu ngi ci dégg ay son yoo xam ne nii dafa ànd ci organisation comme ni montre dafay tak tak mi ngi noonu tey jii météo yi am ci kaw suuf or xaalis tout ça bañ demee ba laboratoire yi sophistiqué yooyu yépp gis nañu am na ay son yu nekk ci biir waxumaa nag la ci nekk ci ay atome ak électron yoo xam ne nii ma ngay dem di wër ala kulli xaal suñu borom jalla wa ala nee na amul lum mën a doon lu wow lu tooy lu dul ne mi ngi sabbal yàlla subhanahu wa taala doonte ne comprendre leen nuñ koy defee falilah alhamdu ñun tamit yàlla tànnal nañu ñu ngi koy sabbal yow julit booy ruko yaa ngi sabbal yàlla subhana rabbi alazim wa bihamdihi yaa ngi sabbal yàlla ànd ak di ko sant boo sujuutee subhana rabbi ala soo jullee ba pare subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 ay yusabbihu yusabbihuna bihamdi borom boobu nag ne mooy alxalim mooy ku tey ku lewet ki boo toogee diine may yàlla boo toogee di rey ay jaam tant que délai bi mu la tëralal nga war koo dee jotul dalay seetaan rek te bis boo tuubee mu baal la kooku mooy alxalim waaye nag bis bu la jàppee ci tuuboo kenn du la mën a teqaleeg moom borom boobu it na ko noonu mooy xafuur xafuur mooy ki nga xamee ni nii bakkaar boo mën a def ci mboolem yim la tere na doon bokkaale la na doon rey nit la na doon riba la na doon lum mën a doon bis boo ko tuubee tuub bu sell ci sa biir xol suñu borom subhanahu wa taala jéggal na la yàlla na yàlla jéggal ñu luñ mas a def ak luñ nar a def mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في
fiikum suñu boroom jalla wa ala mu ne ab yonentam jaarale ci moom bépp julit wa ida qara'ta alquran heure booy jàng alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axira daan jëf sa digganteeg ñi nga xam ne gëmuñu alaxira xijaaban mastura benn kiiraay boo xam ni lu ñu làq la xijaab mooy lépp lu dox digganteeg dara waaye mastura yàlla yi diir xijaab bi ba kenn du ko gis wa jaalna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu def nañ ca seen biir xol ya ca seen kaw xol ya la nga xam ni mooy ay kiiraay yuñ ko takkee ba duñu mën a dégg alquran jooje wa fi azanihim waqra def ci seen biir nopp ya lu diis loo xam ne dana leen tey dégg wa ida zakarta rabbaka fi lqurani waxda su dee yaa ngi tudd sa boroom ci alquran ji kese wal wallaw ala adbaarihim nufura daañi dëpp jëm ci seen gannaaw ya doon ñoo xam ne ñuy daw lañu di tasaaroo nahnu a'lamu bima yastami'una bih ñun de ñoo gën a xam ca la ñuy déglu jëme ca is yastami'una ilayka wa is hum najwa jamono ji ñuy déglu ci yow ak jamono dañuy nekk di déeyoo is yaqulu zalimun jamono bi muy wax toonkat ya in tattabi'una illa rajulan mashura yéen de topp leen lu dul góor goo xam ne ñi rek dañ koo njabar unzur kayfa darabu laka al amsal xoolal ni ñuy dóore ñeel la li nga xam ne mooy ay misaal fa dallu nii de lañu sànkoo fala yastati'una sabila te ñoom day dañu am kattan ci benn yoon bu ñuy jaareti wa qaalu yéefare day dañuy dañ naan a ida kunna izaman wa rufata ama ndax ñun bu ñu nekkee ay yax doon loo xame ni it ab poussière lañu la ñuy doon muy suuf bu nekk poussière a inna la mabuthuna xalqan jadida ama ndax ñun daan ñu dekkal ñu nekk bindin goo xam ne bindin gu bees la mi ngi noonu mbokk da ngay gis ni alquran ji suñu boroom da ko indi ngir ubbi ci xol yu tëjuwoon gindi ci ila siratin mustaqim allahuma lu dul am na ci jaami yàlla yi yoo xam ni dañoo fettirlu mbëru ci kanamu borom bi bëgguñoo dégg dëgg suñu borom nag ne ñooñu day heure booy jàng alquran ñooñu gëmul alaxira damay def kiiraay sa diggante ak ñoom ba sens ba nga xam ne muy jubluwaayu alquran duñ ko mën a dégg maa kaste seen xol ya tëj seen nopp ya ba heure boo demee bay jàng ba yegsi ci kadduk la ilaha illa allah ne yàlla kenn la ñoom ñëpp ñu daw tasaaro bàyyi la fa te loolu it mbokk li ñu ko doon waxe sànq tawxid mooy la yàlla yónni ay yonentam waaye tawxid moom la cheytaane ak mbooloom gën a bañ looloo tax yonenti yàlla yi mboolo seen wallahi buñ ñëwoon kese yem ci ne bàyyi leen bakkaar def leen jaamu yàlla te ñu bàyyi leen ak seeni xërëm benn yonent du am problème waaye problème yi yonent yi amoon yépp mi ngi déparé ci ni bala ngeen ñoo gëm da ngeen di bàyyi yàlla yi ngeen di jaamu da ngeen di yem ci yaakaar yàlla kese ragal yàlla kese loolu la yéefiri mënul woon dégg looloo tax borom bi ne ida zakarta rabbaka fi lqurani wahda wallaw ada ala adbarihim nufura mi ngi noonu borom bi nag ne ñun ñoo gën a xam lañ cay déglu ci jamono yi ñuy déglu ci yow te mbokk yéeféer yi dañ daan ñëw di déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di déglu histoire yi muy nettali histoire yu neex yi ci suratu yusuf la nga xam ne mooy ñoom huut saala fanjaar yooyu dañ ko daan nekk di ko déglu waaye bu commencé wax tawxid ishma'azzat qulubu allazina la yu'minuna bil akhira xol yi daal di bañ su ko defee borom bi nee na xam naa lañ ciy déglu ca mooy dañuy déglu rawatina pour critiquer ca loolu it bari na tey la ñuy tuddee ay orientaliste nga xam ni rawatina ci siècle bi ñu génn tubaab bi jël nañ leen dugal leen ci këru lislaam dañuy jàngal xuraan jàng sunna jàng diine bind ci ay téere loolu lépp pour ñu gën a mën a xam xool ana yan faay la ñuy jaar ngir xeex diine ci kon la tax ñuy déglu mooy ngir mën a critiquer waaye déglu wu ñu ngir mën a gindeeku looloo tax ba la leen yàlla faye mooy gis ñu ci alquran lu dul ni kii day nekkul lu dul koo xamee ne nii njabar la ah, góor la goo xam ne ni gu ñu njabar rek la loolu it mu lay jàngal yow doomu aadama heure boo jógee di dem ci waaraate ngalla way na sa yéene sell mooy yàlla maa ngi ñëw ngir dolleeku xam-xam wala fàttiliku lu ma xamoon heure bu la yàlla baaxee nga dégg fa loo xamee ni nii kat daawoo ko jëfe bis ni ki tey nga dogu ni lii de dootuma ko bàyyi ba baa muy dajeeg suma borom heure boo fa déggee loo xam ne njuumte la boo nekkoon nga dogg ne bis na ki tey di lii banaa ko ba baa may dajeeg sama borom yéene bu sell boobu mooy contraire u yéene ki nga xam ne dafay déglu ko di critiquer borom boobu nag ne xoolal nit ñi lay dóorale misaal amuñu misaal bu ñu lay dóoral lu dul njabarkat nga ñii day réer nañu ci duñu gindee ko ba faw te it mbokk ku alxuraan gindiwul leneen du la gindi ba ila yawmi diin la yastati'una sabila bokk na loo xam ne yéefiri dañ ko doon wax waaw ñun bu ñu deeyee nekk ay yax nekk poussière naka la ñuy dekkiwaate ba benn saay-saay ca ñoom di Aas ibn Wail mas naa dem indi benn yaxu néew yu fënax fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaaba gi mu dóor ko mu tasaaroo mu ne ko Muhammad bàyyil caaxaan man yox yi la isama wa hiya ramim li kan moo koy mën a dekkal gannaaw ba mu meli nii donte ne tontu ba mi ngi ci téere bi yàlla bi mi ngi noonu Cheikh Ousmane
لكل حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في قلوبكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فيصغرون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا barakallahu fikum suñu borom mu ni qul kunu hijaratan aw hadida bis bu ngeen deeyee soppiliku leen ay xeer wala ngeen soppiliku ay weñ aw xalqa mimma yakbaru fi sudurikum wala benn bind ca la nga xam ne màgg na seen biir dënn yi fa sa yaquluuna man yuiduna daañ la laajat beneen question waa bu boobaa kan moo ñuy delloowaat def ñu ay ay nit qulillah qulilladi fatarakum awwala marra neel mooy ka leen bindoon ca njëlbeen bu njëkk ba parce que yunxiduuna ilayka ruusahum xel sa nañoo téeneel jëme ci yow seen bopp ya wa yaquluuna mataahu ñu ne waaw loolu moom kañ lay doon qul asa an yakuna qariba neel mën na doon mu doon loo xam ne lu jege la yawma yaduukum fa tastajibuuna bi hamdi bis ba leen seen borom yàlla di woo yéen ñépp da ngeen ko wuyu ànd ak ak cantam wa tazunnuuna in labistum illa qalila te da ngeen jort ne saxu leen woon lu dul loo xam ne lu néew la wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan waxal ma samay jaam ñi wax ca nam gën a rafete inna sheytaana yanzagu baynahum sheytaani day ma ngay nekk di jaxase ca seen diggante inna sheytaana kaana lil insaani aduwa mubina sheytaani day nekk na ci doomu aadama noon boo xam ne noon bu bir la rabbukum aalamu bikum seen borom yàlla moo gën a xam ci yéen in yasha yarhamukum su ko neexee mu yërëm leen aw in yasha yuazibukum wala su ko neexee mu mbugal leen wa ma arsalnaka alayhim wakila yow nag yow yonent bi yónniwuma la nga doon koo xam ne yaa leen di taxaw di leen wakil mi ngi noonu jalla wa ala bokk suñu borom yéeféer yi bokk na lu ñuy laaj suñu dee ba tasaaroo ci kaw suuf kan moo ñu mën a dekkalaat suñu borom mu ni soppiliku leen ay xeer wala ngeen soppiliku ay weñ wala lu leen neex ci bind yu ngeen xalaat su ko defee daan na la wax waaw kan moo ñuy delloowaat defaat ñu ay nit tontu la lu simple la mooy ka leen bindoon def leen ay nit moo leen di delloowaat ngeen nekk nit yow doomu aadama bi ngay nekk nit foo jóge yaa ngi jóge ci am ndox mu ñàkk solo min ma in mahin ndox mu ñàkk solo te nga cosaanoo neuf mois après sa borom génn la ngay nekk nit naka noo nit boo nekkee poussière ci ko ci biir suuf heure bu soobee yàlla mu génne waat la def la nit loolee da ngay gis ñu ngi noonu su ko defee borom bi nee na dañ wax waaw dekkal googu kañ lay doon yow yonent bi ne leen ah man nam de jege na te na am mbokk ba ko yàllay wax yonent bi alayhi salaam ne leen bisu pent man nam jege na gannaaw loolu mille quatre cent ci ay at dolleeku na ci ay wàññeeku na ci kon gën na jege waaye nag kañ la yàlla moo ko xam bokk na ci mandarga yi àdduna lee mu jeex mooy bi yàlla yónni suñu yonente muhammad salallahu alayhi wa sallam ndax mbokk ko daan tegale yonente di yónni di yónni di yónni di avertir di avertir ba indi nag dernier avertissement loolu muy wane na kon des bariwul borom boobu nag ne bis bi nga xam ne dana leen woo yéen ñépp da ngeen wuyoondoo ànd ak di ko sant te mbokk suñu borom yàlla bis lay ñëw ci bis yi mu daal di taw ab taw ba ko soob fekk ne kaw suuf li ci nekkoon lépp faatu na ba duggaat biir suuf taw boobee bu ñëwee mboole milliard yi nga xam ne mës naa dund ci kaw suuf na doon loolu ay nit la na doon loolu ay bàyyima la na doon loolu luy naaw la wala luy raam la lu mu mën a doon suñu borom yàlla jëlal seen ruux ci kattanam jox leen ordre ruux yi tasaaroo ci kaw suuf ku nekk ruux sa ruux jubal directement ci yow daal di lay dekkal su ko defee ñépp génn seeni bàmmeel mi ngi noonu boole di sant borom bi jalla wa ala mi nga xam ne nii keroog yowmal qiyaama amul kenn ko fay xettali ko lu dul ko xettali borom boobu nag nee na ba keroogee da ngeen jàpp ne ndekati lu néew a néew ngeen dundoon te wallahi mbokk julit doomu aadama bu nekk ci dund àdduna day mel na kuy nelaw waaye boo yeewoo ngay doog a xam ne ah nekkoo woon ci lu jar wuute ak sa borom dund àdduna mbokk par rapport ak alaxira wallahi moo gën a gàtt nelaw yi 30 minutes yi nga nelaw gént fi li nga fay gént yeewu xool leen borom bi nee na yowmal qiyaama diir bi cinquante mille ans la fi yowmin kaane miqdaaruhu xamsina alfa sana cinquante mille ans léegi nag da ngay xool borom bi loolu la wax benn bis luy diire loolu tey yow nga xool yow doomu aadama boo delloo kër nga xoolal nga jël cinquante mille nga diviser ko par vingt quatre heures lam la jox nga diviser ko par soixante mi ngi lay jox ay presque trente quatre donc mën nga wax ni chaque minute ci dunduk alaxira mi ngi méngoog 35 ans ci dunduk àdduna waa ji defoon 100 ans ci kaw suuf bu demee alaxira bu xalaatee day jàpp man 3 minutes laa def ci kaw suuf ki fi defoon 100 ans day jàpp 3 minutes laa fi def ñoom yonent yàlla nuux ñooy jàpp ne def nañ fi 30 minutes ñoom ñu def dund ay mille ans kon bokk dund àdduna mi ngi noonu dafa gàtt lool su ko defee yow mi borom xel xoolal lu gàtt loolu ci lan nga koy jeexale rawatina ñun ñi yàlla nattoo ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nattoo na ko dund xeetam dafa gàtt nee na li ëpp ci xeetam ñi ngi dund entre 60 ans ak 70 ans nee na li ëpp ci xeetam loolu la ñuy dund li ëpp booy 60 ans ba 70 ans te boo xoolee dund sahabatul kiram dund borom xam-xam yi xeet bi xoolal ñum ñëpp 90 pour cent yi amuñu 70 ans loolu kon moo tax ba ngalawaay xamal ne dund gi gàtt na lool fexeel góor góorlu jeexal ko ci lu neex yàlla léegi nag am na dund guy ñëw boo xam ne c'est infini amul fu mu yem c'est des milliards et des milliards d'années amul fu mu yem muñ gi nga muñoon ci dund gu gàtt gi jaarale ko fi neex yàlla moo luy jural teranga boobee yàlla nañu yàlla boole ci borom xel yi comprendre loolu ci jëfe ko borom boobu nag ni yow yeneen ci yàlla bi waxal ma samay jaam bu ñuy wax nañu xool nam gën a rafete ñu waxee ko ndax seytaane kat mi ngi wër di jaxase seen diggante awalan bokk julit suñu borom waxul waxal wax ju rafet daf ne la gën a rafet mooy la gën a rafet donte ne wax ji gën a rafet mooy tawxid weetal yàlla wax ji gën a bon bu ñuy wax ci kaw suuf mooy bokkaale yàlla wax ji gën a rafet mooy woote jëme ci yàlla man ahsanu qawlan mimman daa ila allah kan moo gën a rafet kiy woote jëme ci yàlla wa amila salihan wa qala innani min almuslimin loolu mooy li aju ci diine ji amma li aju ci dundinu àdduna nga la way bàyyil xel aka bëri sëy yu tas lan moo ko tas wax joo xam ne dañ koo wax nuñ ko wurta waxe aka bëri diggante xarit yu yàqu wax bu ñu wax nuñ ko wurta waxe la aka bëri liggéey ah ku dàq employé wala koo xamee ni nii ay xeex lu ko waral mooy nit ki wax wax joo xamee ni nii mën na am moom ba mu koy wax lam ca jublu ka koy dégg lam ca jublu déggewu ko noonu su ko defee seytaane da koy jël daal di koy réyal ci xolu kan koy waxal loolee moo tax suñu borom ne bu ngeen dee wax xool leen bu baax seet nam gën a rafete ngeen waxe noonu balaa seytaane yi profité ci wax jooju yàq seen diggante borom boobu nag ne xam leen ne seen noon bu rëy la muy seytaane seen noon bu rëy la borom boobu subhanahu wa taala ne e yéen nit ñi xam leen yàlla gën a xam ci yéen rabbukum aalamu bikum koo gën a xam yàlla ko gën a xam bal yàlla rek xam ay jaamam mu ne fala tuzakku anfusakum huwa aalam bi man ittaqa doomu aadama mënoo témoigner sa moroom njort nga mën a am amma lay dëgg-dëgg yàlla rek moo ko xam am déet loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax yàlla it nee na moo gën a xam ci ay jaamam looloo tax yow doomu aadama aka bari looy bëgg fekk baaxul ci yow borom bi subhanahu wa taala mu ne wa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum looloo tax nga koy ñaan benn mbir di ko ñaan yàlla du la ko may parce que xam ne ne baaxul ci yow mu seet la baax ci yow mu defal la ko rabbukum a'lamu bikum moo gën a xam ci yéen ña ca baax xam na leen ña bon xam na leen ñay sellal xam na leen ñay nafiq xam na leen borom boobu nag subhanahu wa taala ni su ko neexee mu mbugal leen su ko neexee mu yërëm leen amul benn jaam ci jaami yàlla yi lu dul def na def na loo xam ne boo neexoon yàlla mu jaar ci mbugal ko amul benn jaam ci jaami yàlla yi lu dul suñu borom subhanahu wa taala su ko neexoon mbugal ko loolu it moo tax ba yow doomu aadama tant que résultat yi génnul yowmal qiyaama ñu jox la sa téere ne la réussir nga àddina nga jëm nga la waay sa xel bu mu dal am déet ndax suñu borom nee na heure ku ma neex mbugal la imam bu mag di hasanul basri dañ koy tudde mooy saydu tabiin mooy ñi toppat génération sahaba yi ki ñu jàpp ne moo ci gën a baax mooy hasanul basri nga xam ni ci kër yonent bi la yoroo yaayam jaamu ummu salama la woon di yaayu di di soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu boole xam-xam ak ragal yàlla ñu ne bari woon ne di jooy loolu bis gaa yi ne ko waaw yow imam hasan ñi ngi lay gis da ngay jooy rek mu ne waaw ah ñun ñi ngi jëm ci daje boo xam ne su neexee yàlla mu ne ana xasanul basri mu ne mun a jàpp leen yóbbu sawara ca kenn du ko jox demande d'explication am déet mi nga noonu in yasha yarhamukum wa in yasha yu'azibukum yàlla na yàlla boole ñu ñëm yërëm borom bi nag mu ne yow yeneen ci bi yónni wuma la pour nga taxawu leen bañ jaamu yàlla dama la yónni pour nga jottali soo jottalee sa jan wàcc na mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
jazakallahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ni wa rabbuka a'lamu bi man fi samawati wal ard sa borom yàlla moo gën a xam ci ñi nekk ci kaw asamaan yi ak suuf wa laqad faddalna ba'da annabiyina ala ba'd ñun de gënale nañu lenn ca yonent ya ca kaw la ca des wa atayna daawuda zabura te jox nañ yonent yàlla daawuda lii di téere buy tudde zabur qul idu allazina zaamtum min duni neel woo leen ña nga xam ne jort ngeen leen ca duñu yàlla fala yamlikuuna kashfa durri ankum wala tahwila ñoom day moomuñu di dindi ak lor ci yéen moomuñu it di ko mën a wëlbati di ko jëmale feneen ulaika allazina yad'uun ñooñee nga xam ne ñu ngi leen di woo ca duñu yàlla day yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ñoom day ñu ngay sakku jëm ci seen borom loo leen jokkale ak yàlla muy wasila ayyuhum aqrab di xool ana kan mooy gën a jege yàlla wa yarjuuna rahmata ña ngay yaakaar yërmandeem wa yaxaafuuna azaba ña ngay ragal mbugalam inna azaba rabbika kaana mahzura sa mbugalum borom day nekk na loo xam ne lu ñuy war a fuglu loo xam ne di ko war a ragal la wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha amul benn dëkk lu dul ñun yàlla dañ ko alak qabla yawmi alqiyama balaa bis penc di taxaw aw muazibuha azaban shadida wala ñu mbugal ko mbugal moo xam ne bu tar lay doon kaana zalika fi lkitaabi mastura lool day nekkoon na ca téere ba doon loo xam ne luñ fa bind la mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne sa borom yàlla day moo gën a xam waa asamaan moo gën a xam waa suuf ca itamit mooy ki bind waa asamaan mooy ki bind waa suuf amul kenn ci ñoom lu dul moo la sos xam na la ngay dund xam na fooy deeye boo dee fa nga jëm xam na ko mu ne nag noonu mu leen binde noonu la leen gënale looloo tax xatta yonent yi da leen gënale te xam leen ne mbokk ku dul yonent yonent moo ko gën ku dul yonent yonent moo ko gën ci biir yonent yooyu yàlla gënale leen ña ca gën mooy ñi ñuy tuddee ar-rusul anbiya yi mooy ñi yàlla xamal nu ñuy jaamoo yàlla directement ñoo ñi borom xam-xam yi nee nañ ëpp nañ téeméeri junneeg nangam ci seen biir mu tànn ca al-mursalin mooy ñi yàlla jox téere yónni leen ci ay ay xeet ñooñu la ëpp ci borom xam-xam yi dañ naan trois cent et quelque lañu ci seen biir mu tànn ci vingt cinq yi nga xam ne tudd na leen ca téeréem ñu ngi noonu ci biir vingt cinq yooyu mu tànn ci juróom